mais yow bu fekkee ni da nga nekk un leader d'opinion ni danga bëgg a nekk président Sénégal Sénégal nga bëgg a jiite mais réew moom soo ko taalee wala nga yàq ko mais yow doo ci jot donc man dama jàpp ni chef de quartier sax Ousmane Sonko mënu ko nekk ci biir Sénégal parce que benn les mesure barrières bi ñuy wax ci pandémie bi mu ngi nekk ci plage bi di bëree di def contact direct ci quelqu'un boo xam ne tu dois montrer le bon exemple beneen bi ci topp. ngay inciter nit ñi à la violence comme ni ma koy waxee wax naa ko Aly Ngouille wax naa ko président de la république nit mënul nekk ci dëkk chaque jour muy def incitation à la violence ñu bàyyi ko parce que ci biir waxam nee na boy yi temps yee passé xeex ngeen pour couvre-feu bi ñu bàyyi ko jëlee ko 9h yóbbu ko 23h xeex a tax ngeen am ko bu xeex boobu soo leen ko xeexoon ci littoral bi kon kër yi du fi taxaw donc loolu muy def noonu incitation à la encore une fois tey nag. Sénégal dañu bëgg xam ndax Ousmane Sonko dafa am lu ko nit ñi ragale wala dafa am lu mu xam lu nit ñi xamul wala dafa am lu xew ci dëkk bi dañ ko wax nit ñi parce que nit mënul nekk ci dëkk chaque jour muy def incitation à la violence kenn du ko woo police kenn du ko woo gendarmerie lu ko neex mu wax te beneen sénégalais bu fi génn wax dara bala moo am 24 heures ñu convoqué ñu convoqué la gendarmerie wala ñu convoqué la police Ousmane Sonko dañ ko war a woo laaj ko incitation à la violence bi mu dëkkee mu wax ñu lan moo tax mu koy def